cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñu seetaan booba ak léegi nag di ñu bàyyi xel dikk ak ci xibaar yi wax rek ci mbirum Casamance ak rebel yeeg jàmbaar yi jàmmaarloo boobee ba léegi nag dàkkagul ndax ca gox ya ñu duppee nag junji elol Guinea ak foofee ca jawbe nag Marsassoum jàmbaar ya nag jàmmaarloo nañ ko ak ñiy bokk ci ci mouvement des forces démocratiques casamançaises gannaaw nag ci loolu nag ci la ñu dal dee teg rek lu am solo ci quantité de drogue boo xamante ni itam gisoon nañ ko ci bërëb yi nga xamante ni ñoom rebel la ñoo ko occupé woon ci jamono joojee nag ki nga xamante ni si moo di njiit di Salif Sadio nag dal dee ab mboy gi daw dugg ci àll bi ba léegi nag kenn tegagul ko gët waaye nag laataa loole nag jàmbaar yi di wéy di continuer rek seeni opération de sécurisation loole sax moo tax ñu dal dee jàpp rek ab drogue bu baree bari boo xamante ñoom MFDC di rebelle yi ñoo ko téewoon seen bërëb yooyu fare ca diwaanu Casamance daanu wax it itam ci wàccaayu korite gi nag ci jamono ji nag marché yi foo dem rek fees dell la def ak coupé doomu aadama lépp nag ngir waajal li nga xamante ni ci moo di korite gi waaye nag yenn ci askan ñoom gis nañu daal mbir mi cher na lool lii di yàpp ganaar jafe gis waaye itam tissu yeeg yenn ci jumtuwaay yi nga xamante ni si askan yi warees nañ ko mën a soxla dak si jamono ji nag si marché bi métti na bu fay yem moo tax daal ñu bëri si ñoom jàpp ne daanaka korite bi moom def lu yem rek ba jamono daal dee neex waaye nag li ñu gisagum dalagul xel te ñoom ñëpp jàpp nañ ne fi mu toll nii nag dëkk bi fi mu toll ñi waroon nañ cee mën a def xiwal boo xamante ni ñëpp daanu mën a passé ci korité boo xamante ni du am benn jafe-jafe dem ba ca Saraya foofe nag ab lakk-lakk di incendie boo xamante ni si daanaka doole jëmu ànd ak yéeme na lool moo daal dee ñëw nag daanaka lu ëpp nag ci dëkk ba fare ca Sambara Bugu nag daanaka safara ci def na ko doom bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yu jotee ab incendie la boo xamante si booru ñaari waxtu ci bëccëg bi foofee naka ca Samburu Bugum benn gox la bu faree naka ca commune bu Missirah Sirimana naka ci département bu Saraya ndax lu ëpp naka téeméeri néeg ak i boutique yoo xamante ni lépp nag safara ci da ko dal dee defub doom dégâts yi naka bari na lool naka boo ko doon estime rek maanaam xayma gi war na ëpp ay millions di dem di ab lakk-lakk bu amee foofee naka ca dëkk ba ñu wax Samburu Bugum fare ca Saraya niki démb gannaaw ba amalee seen conseil municipal foofee ca ville bu Ndakaaru moom Barthélemy Dias nag fa mu tegoon tànkam teggeegul ko ba léegi ndax la mu bëgg rek di nisar ko moo di dajeek ak président de la république gannaaw bi nga xamante ni daal wax na ne la ñu bëgg a waxtaane moo di mbir yoo xamante ni si bokk na ci jafe yii di bu Ndakaaru dal dee dund ñu daal di koy waxtaane mu nekk càkkuteef boo xamante ni booba ak léegi Barthélemy Dias moo ngi koy sàkku ci président de la république ni ki démb naka la ko gën a dëggalaat ci jamono ji nga xamante ni ñoo ngi amal seen conseil municipal foofee ca diwaanu Ndakaaru Ndakaaru desandi ba tey ci mbirum Ousmane Sonko ak audition yi nga xamante ni si ñoo doon amal ci loolee nga xamante ni moom la ñuy wax ci viol répété waaye itam menace de mort bi dox ci diggante leaderu Pastef ak Adji Sarr moomee naka noonu nag gannaaw bi nga xamante ni si moom Ndeye Khady Ndiaye Adji jot nañoo jàmmarloo foofee nag ca àttekat ba ni ki fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu weesu yeneen ñaari nit nag daanu a déglu ci boobule dossier ni ki aljuma ak tey jii nag yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baax le magistrat instructeur bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi jotee nag moo ngi doon rek médecin bi gunge woon Ahmed Mbaye si ngoonu bi nga xamante ni ci la mbir yi amoon foofee nag ca gynécologue ba docteur Alfousseynou Gueye ay ah, itam ki daal di établir ab certificat médical boo xamante ni si moo laale ak boobule viol présumé di nga xamante ni si dañ ko accuser leader bu Pastef di Ousmane Sonko Sidi Ahmed Mbaye nag di jarbaat ci ab responsable buy faree ci mouvance présidentielle bi moom mi nga xamante ni Sarr gannaaw bi ma xamante ni si nee na daal jot naa seq ak Ousmane Sonko foofee ca salon Civit Booti mbiru xal jigéen boobee nga xamante ni si am juróom-ñetti at te ñu assassiné ko foofee ca Bargny ki nga xamante ni si fukki at ak ñaar la am di cousinam Anta Ndiaye moome nag daal dinañ koy impliqué ci mbir mi te mbuub moomee nag moo jàppoon ci tànk gone googee nag ci jamono ji nga xamante ni ñoo ngi koy dóor dóor yu métti waaye itam laataa rek moom mëma dal di koy xooj ba mu ñàkk bakkanam ndax xale boobee nag di Anta rey moom boobee ak moomu daf leen a ci ab benn taax ñuy def naka si noonu di sëy loolee naka taxoon ñu bañ mu ne tax naka ñu daal di koy jàpp door ko ba mu jàkk bakkanam waaye itam mbir moomee naka doon na li nga xamante ni si jamono ji mu ngi ci loxol yoon mu mel ni naka loolee am na ci loo xamante ni yees na ci ndax bañoon mu nettali mbir moomee moo tax rek xale bu góor boobee xoj ko ba mu ñàkk bakkanam ci ndimbalu ko nga xamante ni si ab cousinam la wax itam ci wàllum tàggat yaram ak mbay ñaa mi daal di kaddu kàddu xam ne naka équipe nationale bu Sénégal daal dina koy manqué bu bu baax a baax moom Mbaye Niang boobee nga xamante ni si gëj naa ñëw ci équipe nationale booba ak léegi nag def ñaar fukki weer ak juróom-ñeent gannaaw bi nga xamante ni si ay weer moo des ñu amal mondial 2022 attaquant sénégalais boobee nga xamante ni moo ngay football a baax ci dernière mu xamle rek moo di fi mu na li nga xamante ni si euh, na ko suñu naataango yi fare ci record yéene kaay moom nag nee na moo ngi am performance bu baax a baax ngir rek dellusiwaat ci équipe nationale ndax xam na ne Sénégal boobee ci jamono ji am na équipe bu mag a mag boo xamante ni si war na see mun a def gannaaw bu mu atteindre son but mbay Niang nag mise na si prestation mi amal ca club la moo xam ne rek moo di ca sélection Astar dina am ay sélection tant d'années ndax quinze sélection ñeenti but moom itam moo ngi essayé rek di performant avec club bam boobu nee na incha allah dina dikkaat rapidement ci li nga xamante ni da ko manqué woon di équipe nationale moom bordelais boobee di marté te naan mbay Niang moom dikkaat ci forme incha allah waaye itam dina def lépp ba équipe nationale mu dal addiyee duggaat wanewaat boppam ndax da koo manqué lool di waxtaan wi nga xamante ni seq nañ ko ak yeneen suñu ay euh, naataango mbokk yi jaa ngeen jëf di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ëllëg ci beneen jotaay faram-fàcce xibaar jaa ngeen jëf